waaw parfois moom suñ ne la ban discipline ngay def nga ne lutte olympique ñu ne la luy lutte olympique nga ne leen xeetu bëre la ñu ne bëre lan ngay dox di bëre en tant que jigéen jigéen warul bëre ma ne leen mais sport sport la ma ne sport bii nii xëy na sénégalais xamuñu ko 100 pour cent mais sport bu noble la bien sûr barki démb rek moo ci mujj dimanche dama dugg dama demoon jouer rugby camp Bel-Air di ñibbisi dugg ci calando pour mun a dem Euh, koloban jël auto ñëw parcel ki den nak man ne grand do pousse ma siggi xol ko mune may maa mune ko miis naa ko parfois nga dugg bus tamit nit ne la grand bal ma jëndal ma ticket ndax man sumay entraîner ci casquette lay sol da ngay dox parfois ni ni mardi bi passé rek bir école li ma ko sol sama sort ki nan way yeen ki gor la wala jigen ñu nan xol tànk yi affaire yoy daf may déranger mais dama nan man ma opté don sportif kon damay nango don dal lu waay wax rek damay nangu. te jigéen ñi def sport ñëpp laay waxal waxuma si lutte bi kese kon day mel ni damay far mais jigéen ñi def sport yëpp laay waxal nañ jàpp te woo bàyyi suñ jàppee li olof njaay naan buum bu ñuy xëcc xawma bu lanul dikk euh, waaw bu daggul dikk nañ jàpp te gën a fonk seen bopp gën a respecté entraînement yi gën a déggal seen coach ku bëgg a avancer en tant que sportif nga doon jigéen respecter heure bu coach bi ne 17 heures 14 euh, heures 40 na la fekk lieu bi ngeen di entraîner coach bi conseil bu mu joxe donte neexu la defal loolu moom boo ko defee rek di nga réussir si si li nga li nga li nga li nga visé.